bu Sénégal di Macky Sall ak ay njoñam ku ci melni Antoine diom mu nek nak ay mbir yu doy waa dinañ ci ñew ak yaq gi nga xamne nak def nañ ko Sénégal ba fii Sénégal tollu jamono bi nak mu na a nek ab defaraat bo xamne gouvernement bu bes bi war na koo commencé bala ñu sey ñew ñu daldi di li gëna fess ci ay xibaar bok ci politique mu melni député Benno Bok yaaka yaakaari ñongi tambalé euh tàmbale ginnaw waaw ngir defal nak règlement intérieur bu assemblée nationale ginaaw bi leen waxé né dañoo ñu fo usage de faux ci ab proposition de loi bu wa PDS dokal ngir ñu defal règlement intérieur bi mo ngi noonu dinañ ci ñëwaat ñàkk si yeneen i xibaar. Macky Sall jël réew rek soppi ko dictateur nak kenn du wax kenn du opposé wu kenn du bind Facebook lo wax dem kasso bo sëqatee dem kasso bo commentaire dem kasso bo santé deug santu joolaayo wala CDC dem kasso buñ la xoolee neexuñ reetaan boo reetaanee sax ñëw bu la kaso reetaan sax yóbbu nañ fi nit kaso mais benn nit dafa mën a jaaxal ab peuple ba pare as ah, Macky Macky Sall topp ay honnête citoyen sénégalais di leen accuser Macky Sall dem na boobu fote fi lu waaw terroriste pour lan pour accuser aw askanam terrorisme dem na ba ba nguuram lañ gis mise en scène acte terroriste moo tax kenn gëmu ko biisu yaraax bi ñu bëgg a gëmloo nit ñi ne attentat terroriste bis bo xamne do gis kenn ku la ne sama dom ci la bok sa way man man man scénario yi ba pare li ci gën a métti asmalik mooy waakuru Macky Sall lu bon loy xol rek lu yees ci sénégalais yi ñi nga and ak Macky Sall délinquant bu mel ni Bougazelli dana ci yow kenn ko kaso ndax yow la andal quoi ndax ci nguuru Macky Sall bok saña taxaw trafiquer une valeur de quarante cinq mille milliards francais CFA ñu ay député am trafiqué fii passeport diplomatique di takkante ay centaine de jabar di jaay ay député yoo xam ne Sénégal leen di fay askanu Sénégal moo leen di fay di leen jox carburant di leen jox oto dara fekku leen ci te Sitor Ndour di xaritu Macky Sall violé ab mineur moo tax ngeen xam ne yàlla ay karim sàcc yi gaan rapport Covid bi période Covid bi. waa kër Macky Sall ngi sàcc alalu askan wi di ko lekk Macky Sall du gisoo ko mu dal fi kenn lu neex waa këram yi wax Penda Ba militant wu Macky Sall saaga fi wolof yi yëpp Kalifon Sall taggal fi Macky Sall saaga Macky Sall tu as l'impression que hmm, day promouvoir ay anti ko quoi ay Ahmed Suzanne Camara ay Aliou Dembourou Sow wax ji bon ji nañu wax ko fi saaga sénégalais yëpp. wa kërëm yi arrogance bi recruter ay nervi APR bu ñu dajé ci seen siège parti bi mbilim mbàcc ñu tojante ay bop ko Macky Sall top ay honnête citoyen sénégalais parce que dañoo bok ci benn parti politique leen taagir tëj ci kasso wa mais mais opposant moy ëpp doole bam na fekk opposant bu nekk ci yoon rek bu nekk ci njóob rek Macky Sall mom opposant yi mu mas a dajal yëpp moo leen ëppon doole du Khalifa du Karim ñeneen ñi Macky Sall Sénégal gëpp la téwun ci loxam passé rek ñoko téwone képp nag ñoo ko tewoon jël na presse bi def ci poosam hmm? dégg nga religieux yi sax dañoo été à l'impression que ne bëgguñu wax ak Macky Sall jël yenn politiciens yi casé créer coalition benn bokk yaakaar casé ay clientèle politique budget Sénégal yi yëpp ay politiciens ñoo koy pàccoo ñaata parti politique ak mouvement ñoo nekkoon benn bokk yaakaar weer bu dee ñuy pasar pasar alalu askan wi Macky Sall daf bu jóg mu nommé ministre soo yi soo am na loo xam ne yàlla du ko seetaan waaw Macky Sall ak lay boo ko munti utal argument boo munti indi argument bi du valable sénégalais yi Macky Sall lañ bañ demee ci urne yi candidat yi mu àndaloon 2012 bañ demee deuxième tour moom la ñu fal jox ko réew mi yëpp teg ko ci loxoom. moo nekkoon chef suprême de la nation mooy fale di folli ñiy def ak dindi yëpp te Macky Sall mooy premier sénégalais bi gën a ëpp information bi gën a renseigné wu amul lan lu ñuy def ci réew mi te yëguñ ko dossier suite ba te yëg na ko Macky Sall communiqué na ci France la dem communiqué ci ba mu ñibbisee amoon nay rapport Macky la preuve rapportu gendarmerie enquête interne bi gendarmerie def Macky la jot na rapport bi. Macky Sall la neex waa këram yi parce que fi nga xamee ne loolu la neex waa këram yi lu ñu def dara du leen ci fekk mais keneen lu mu def musiba naaru lay dal ko wax rek réew moo xam ne emprisonné ñu journaliste yi toutes le couches sénégalais yi emprisonné nañ leen dugal nañ jaay nañ leen doole dugal ci kaso bi journaliste yi mucc ci kilifa diine mucc ci jàngalekatu daara mucc ci enseignant mucc ci militaire mucc ci gendarme mucc ci policier mucc ci. citoyen lambda mucc ci activiste mucc ci ñëpp nga jàpp emprisonné emprisonnement bi benn côté rek bu doon ay waa dañ leen doon emprisonné sax nga ne waaw mais waa këram yi def nañ fi ñaawteef bu ne Bougazelli bu mu ne Bougazelli le cas de Bougazelli est là le cas de Sitor Ndour est là le cas de Boubacar Sall ak Mamadou Biaye ñaari député Macky Sall yooyu doon trafiqué passeport diplomatique yi mi ngi fi le cas de Penda mi ngi fi le ka de Sall mi ngi fi. le cas de Bah de mi ngi fi le cas de kura Macky mi ngi le cas de Fouta Ndiaye Tampi ñi ngi fi ñi ma la limal ñëpp APR lañ bokk Ahmed Suzanne Camara hmm? ay journaliste mitoman yo xam ne Macky Sall moo leen di nourrir ñu taxaw di yekk Sénégalais lu leen neex nguur yàlla rek dul jeex. Macky Sall Ousmane Sonko Ousmane Sonko xel mu mi manifestation yi fi doon am deux mille vingt deux violent manifestation yi mel ni quatre la gëj am Sénégal quatre vingt treize mais yow bala ngaa wax ne li dal Macky Sall man dal Ousmane Sonko ci wàllu manifestation pose toi des questions lan moo waral manifestation lu Macky Sall def ba askan yëpp jog contre moom lan la Macky Sall def ba askan yëpp jog ba nguuram ngi di xaw a wadd mars deux mille vingt et un métti woon moom torop torop pour la première fois ci histoire ma gis Macky Sall di wax ak sénégalais yi ci respect wax ju nooy ko dégg naa leen comprendre naa seeni inquiétude dégg naa leen mais Macky Sall daan wax ak sénégalais yi dangay ngay sentir arrogance bi quoi menace bu menacé wul rek ma ngay wone arrogance daf na ko Kaffrine nekk ci seen téléphone yi kacci kacci kacci kacci vaccin yi fii ci covid bi da ngeen di vacciné wala ma dem ji ko xam nga mais lu Macky Sall def ba tax peuple bi jokk yow question foofu point d'interrogation bobu nga wara jël quoi lan la Macky Sall defal xam nga Ousmane Sonko xalaatul dem ba yàgg opposant am Ousmane Sonko sax faluñ ko ndax jomaa lañ fay mais jomaay mi non xale bu wax ne munta amat parce que rew mom bo fa nekké di dundu dund si maanaam tout cycle bi ñu dund nga xam ne pa metti eh, tout est possible ben nak dañuy ñaan yalla yalla bu mu am wax tegg yalla ah. lolu mom bu amé du bax de. parce que Sénégal moo ciy perte rek boo xoolee li fi lakk lépp tey moo ñu yóbbee déficit bi am ci budget bi bon am na lu ci bokk am na lu nga xamante ne prévision yi ñu defoon ci wàllu pétrole bi la dëgg mais euh, dem toog ci kilifa diine yi euh, am ak ñoom jàmm képp kuy politique ci réew mi wala képp ku yore réew mi dafa maanaam da ko war soxla xam nga am na yoo xamante ne boo <laughs> yoo xanaa xamoo ni.

Ah, moo tax vraiment euh, li Sonko def man dama ko rafetlu de mais bon faaw mu attaqué leen tooñ leen voilà <laughs> pour le débat mais Sonko li mu def ni man dama ko rafetlu ñaawlu ma parce que man dama dan metti suma don deg ñu nan wa waa euh wala yenn seen militant yi du di di bañ Sonko dem fa la Diomaye parce que Diomaye bi mu fa mujjee ne am sax activiste yi ñu ñaawlu dem bimu dem foofu donc man li dama ko rafetlu